rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent taala wa sallam di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi te wér di ñaanal sama Serigne Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké mu yàgg fi te wér di nuyu njabootu Serigne Touba gi fi teew ci njabootu sëñ Tuubaa gi dama koy yëkkati jox ko sama kilifa gii fi toog muy sama sëriñ sëriñ Amsatu Mbàkke bu sëriñ Abdul Ahad mu jottali ko bokkam yi fi teew muy sëriñ Abibu Mbàkke bu sëriñ Fallu ak sëriñ Tàkk Mbàkke bu sëriñ Fallu ak sëriñ Basiiru Mbàkke bu sëriñ Abdou Xaadir ak sëriñ Cheikh Mbàkke bu sëriñ Mahamadan sëriñ Fallu Mbàkke bu sëriñ Baara Xoroja sëriñ Abdoul Ahad Mbacke bu sëriñ Abibou ak sëriñ Sidi Mbacke bu sëriñ Cheikhouna ak sëriñ Abdoulahi bu sëriñ Ndam Atta yi nga xam ne jàkkaarloo na ñoom ñu gis gis leen di leen joxe siyaare di leen ndokkeel di leen jox cër di leen yàlla jox. gannaaw bu loolu wéyee ma sama bokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa fi teewat muy góor ak jigéen mag ak ndaw. teñ bokk pas-pas comme ni ko sëriñ bi waxee ci sëriñ Touba. maa ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen baal ak di leen ndokkeel ci bis bi ñu génn di leen ñaanal yàlla na sëñ Tuubaa nangu seen liggéey ci daje bii ñu daje ci liggéey bu rëy bii nga xam ne Touba ca kanam programme bi teg na ko mu toll nii te mel nii ci ngir Serigne Touba rek di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala wa sallam di leen xamal ne maa ngi fii taxaw ñu jiital ma ci conseil municipal bi ci ndigalal jawrini Serigne Mountakha muy Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo tax ma taxaw fii di wax ñu mu boole ma ak l'ensemble des conseil municipal bi ak bureau municipal bi nga xam ne moo composé maire Touba loolu ñu yàlla nattoo ma mu yëkkati ma teg ma ci bopp bi ma ànd ak ñoom di seen ndaw lii nga xam ne maa leen di doxal ak waxal di leen xamal ne maa ngi ànd ak waa bureau municipal bi ak adjoint maire yi ak conseil yi ngir ñu teew fii tey ci bis bi di la xamal ne rek sëriñ bi mbiram sëriñ Touba ñu ngi ci sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa bi ñu juddoo ci ak taalibe donn ko taalibe ci suñuy maam suñu wàjjur ba fii ñu taxaw te yàlla xéere ñu ci ludul am yëg-yëg ci sëñ Tuubaa di ko liggéeyal di sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp Touba ci kanam ci seen xalaat bu rafet waaye ci seen pësteef waaye ci seen yëg-yëg ndax ni ko sëriñ Abdou Fatah le waxe léegi nit yëg-yëg moo koy conditionné mu jëm ci acte bu ma mu def acte bu mën a doon kon nag su fekkee ne suñ borom tabaraka wa taala xiir nañu ci sëriñ Touba ñu am yëg-yëg ci Serigne Touba ba suñu addina ak suñu àllaaxira suñu jaayante yëpp ñu yëkkati ko mu jox ñu yëg-yëgu nañu yëg Serigne Touba nañ daw jëm ci sëñ Touba li sëñ Abdou Lahad waxoon rek ba ma xamee ne xoolee lépp lu ma am ci teraangay adduna lépp lu ma am ci maqaama lépp lu ma toll lépp sëñ Touba ma ko may ma seet seet lu ma ko mën a faye awma ko damaa yëkkati sama lépp jox ko sëñ Touba ba mu jeex te mu mel ni murid yi roy nañ ko ci loolu ba ñëpp nee nañ dan na Serigne Touba. ku xool jataay bii dégg ni deme demee gis action bi ni mu demee gis préparation bi nga war a xam ne murid yi moom am nañ yëg-yëg te sëñ Tuubaa te seen lépp sëñ Tuubaa la ba jeex gannaaw bu loolu wéyee nag ci wàll ji nga xam ne moom la ma yàlla natoo ma fare fi muy ci taalibeb sëriñ Tuubaa ñu yëkkati ma teg ma ci bopp commune bi ma dénk ma liggéey bi ma ànd ko ak taalibey sëñ Tuubaa yi li ci sama warugar te nga xam bi ñu xalaatee xalaat bii ñu woote mbooleem ñoo xam ne xam nañ ni dëkk bi am nañ jafe-jafe ñi ngi dund ci jafe-jafe ci assainissement te ñëpp ñi ngi ciy def li nga man état Sénégal mi ngi ci di def li mën lépp commune bi mi ngi ci di def li man lépp association yi ci koñ yi ñu ngi ci li man di def lépp waaye loolu assainissement dafa nekk mbir mu diis moo xam ne mënul xëy sotti bi ñu dajee waxtaan ma woo autorité yi muy gouverneur préfet sous préfet woo association yi fi nekk yëpp woo service technique yi fi nekk yëpp woo waa Touba ca kanam ak association yi nekk ci gox yi ak goxaat yi ak euh, waa wilaya ñëpp laa woowoon bàyyiwuma woon benn secteur ne leen dañoo ba damaa bëgg ñu def ref journée de réflexion boo xam ne dañuy xool jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkkam Sëñ Tuubaa bi nan la ñuy def ba def ci liñ man ne do saafara moom yombul waaye nit sañ naa am yéene am pas-pas tey jéem ba sun borom dogal ko loolu moo tax bi ma leen bi ñu toogee waxtaan ak autorités yi ak waa membre de état yëpp ak service technique yi waa Touba ca kanam ñoom ñu ñëw ci ak acte bu am solo boo xam ne ni ko sëñ Abdou taa waxee mbooloo mu daje te am pas-pas te am yéene tey dox lu nekk fu nekk mën nañ faa àgg ndax li mu wax nii ñu ko tàmbalee dañ ko tàmbalee yow nëga mu jëm ba aba abadan ndax feek addinaa ngi dox yoonu murit di dox Touba di dox liggéeyal sëñ Touba di wéy hmm. kon noonu ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ciy jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen xereñ ci seen ak njàmbaar ci seen ak manko ci yëg-yëgu sëñ Touba nga xam ne li ni ñu ko tëddee Touba ca kanam taalibe sëñ Touba yëpp a ngi ci ñu laase ko murid yi répondre ci nii taalibe sëñ Tuubaa yi répondre ci nii li ñu ci teñ ànd kook ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Tuubaa ca kanam moom liggéeyal sëñ Tuubaa te kenn du ma ci man fu ñu toll ku fasiwuma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam sëñ Tuubaa loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam loolu nag ñu ànd ko moo tax bi ñu jógee ñëw Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Sëriñ Tuubaa bi ñu waxtaanee ma ne leen danaa ci def sama ñaq danaa ci def sama alal danaa ci def sama xel danaa ci def li ma am lépp ci logistique loolu moo tax bi ñu ñëwee en tant que Abdou Lahad Ka ma jël 5 million yoo xam ne maa ko def addiyee Sëñ Tuubaa du acte bii nag moo njëkk ci moom dama fas yéene acte bu lu ñu yëkkati rek Abdou Lahad a ci biir lu ñu yëkkati fu ñu toll ma toll faa ñoom feeg maa ngi koy man loolu ma ma ma yëkkati loolu def ko yëkkati sama logistique du entreprise boole leen ak moom ne leen fu ngeen toll ñu toll fa doore nag ñëw ci li nga xam ne moom laa yor te ñëpp bokk ko muy commune Touba bi commune bi it ñëwee li nga xam ne moom lañ yaakaar ne bi ñu toogee wax programme yi muy logistique bi nga xam ne fonctionnement am ci carburant yaakaar naa ne lu mu bari bari mënul ëpp 5000 litres ma yëkkati 5000 litres jox leen waxtaan ak sama bureau municipal ak conseil yi yëkkati 30 millions de francs CFA def ko ci participer ko ci waaye. quatre-vingts personnes yi nga xam ne ñooy personnel service assainissement ma jël trente personnes yi mettre ko à disposition de Touba ca kanam ngir ñu mën a ànd ak liggéey bi à partir de tey ba ba ñuy wax liggéey bi jeex na ñu nekk ci seen disposition ak oto commune bi nga xam ne édercleur la ñu ngi fi te fépp fu ñu war a manque wala fu ñu war liggéey dañoo war a dindi ndox ma mu ànd ak ñoom dindi leen ndox moomu ba faciliter ñiy liggéey ñu mën a liggéey ak leneen loo xam ne nee na këtt ne jonn te commune bi man ko teg ci ak droit ak may ma ko ma def ko ma diisoo ci an ñi ma ci mën a diisoo topp ànd ko ñoom ba mu jeex gan loolu daal laa la ñu laa ne woon danaa ko leeral te di leen xamal ne Abdou Lahad Ka ci cinq premiers membres membre de Touba ca kanam yi la fas yéenaa bokk te du ci des gannaaw ndax sama maam musul des gannaaw ci yoon wi mm-hmm. sama baay musul ci des sama sëriñ sama idol sëñ Abdou Lahad Mbacké kenn du tudd yoon murid te tuddoo ko junni yoon donc loolu laa fas yéene ànd ak yéen nekk ci yéen ànd ak yéen fas yéene di liggéey ba am ngërëmal sëñ Tuubaa ndax moom rek moo mën a njëriñ nit mm-hmm. mooy njëriñal taalibe yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak di leen baal ak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.